Mame Birame Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nga nekk njiitu conseil national des aînés du Sénégal ah, fan yi nee nañ nag euh, retraités yi dañu am ay jafe-jafe pour jot seeni pension lan moo xew exactement ba situation bi am. waaw maa ngi lay jaajëfal euh, soxna si Moreau li xew ñëpp jag nañ seen bët te du gulet dafa mas a xew surtout avec les presse. moom IPRES dafa doon këru à la traité yi nga xam ne wax dëgg yàlla ci doxalin bi il faut mu xoolaat saytu ko waat daal di ko teg ci yoon bu yoon ak mu jot ñu naan dañuy seet ñi nga xam ñu ngi dund ba léegi te eh, yàlla may nañu ñun ci eh, xare ni loo ne boo ko defee war nga mën a jot ci ñuy dund ak ñu dul dund loolu soo nee nit ñi daal di taxaw teem teew ay mag ñu nga xam ne ne mënuñu sax dox dana am ay problème dox ak problème mu xaalis sax pour wu alors loolu dafay doon lu léegi lu lu miti pour ñooñu le looloo tax démb am na ñu bari ñu ma woo ma wax di waxtu démb dem nañ ba xam ne ne euh, jotaay yooyu sax dañ euh, xeex laa ko mën a wax. di gajante di di saagante di waxante yi naaw loolu nag rafetul ci am naa ñu yaakaar ne ay mag dañ leen war a tegal lu nga xamee ne dëgg-dëgg du ñu am ci coono boobu nga xamee moom la ñu gàdd di ko di ci njaboot gi ba léegi ndax genn wàllu kër yu mag yi kër yi dox ci Sénégal presque mag ñi ñoom ëpp genn wàll gi mag ñi ñoo koy doxal léegi nag mbir moomu le euh, war nañ si def saafara def si saafara nag du caabi nu ne dangay jël benn association wala ñaari association yu presse lu nga xamee ne ah amaana ne amuñu matukaay boobu nga xam ne war nañ la déglu loolu yëpp mais comme yàlla def ñu def leen a gànk muy conseil national bi ah li gën rafet mooy di waxtaan ak aussi conseil national bi ñu leen di xelal ci doxalin bi di leen jàppale ci doxalin bu weesoo loolu. Euh, lenn dafa am dëkk bi booy wax dëgg rek ñu ne ñu dama contre wala dama dëkk bi jërëm waa ay personne dañuy tànn su bu leen seen bu leen neex ñi nga xam ne ñoom la ñu waxal ba sax ci conseil d'administration dañuy tànn ay nit ñi nga xam ne ñoom ñoom la neex ñoo ñu leen di dugal ci conseil d'administration dëgg du syndicat yi fa nekk euh, état bi fa nekk patron ñoom dañu leen kuréel yooyu ñu tànn seen nit teg leen waaw nit ñu am fulla am fayda di wax ak ñoom di leen wax IPRES comme nu mu demee ci Genève mhm. santoon nañ leen depuis 2017 ñu daal di saytuwaat euh, charte yi nga xam ne moom moo téye kuréel ba ñi nga xam ne ñoom ñooy fayeeku seen pension mhm. war a nekk ci loolu ñu tuddee conseil d'administration ñuy dogal foofu ñooñu nas di nocci bëgguñu ko def parce que xam na ne bu bi fa mag yi taxawee dinañ gis lu ma xamee ne euh, ñoom du leen neex ci ñu gis ko dañ koy waaw nanu bàyyi yoonu jikko du jikko desat te du jikko yu baax loolu mag yu bari dañ koy eh, ñaxtu waaw amul nag ku ko doon ñaxtu ci magu Ibres yi koo si mënti loolu rek la lay wax waaw loolu nan ko defar gannaaw boobu kii nga xam ne dañ ko ko nee na leen woon depuis 2017 saytuwaal eh, leen seen eh, charte yooyu le ngeen changé ko ndax mu gën a mën a baax waaw lu tax defar boobu moom boobu buñ sugal kenn eh. booy pour moom mm-hmm. am na lenn lu nga léegi Mame Birame Faye état bi fan la toll si projet wu euh, revalorisation pension de retraite yi maanaam gën ko yokk mu gën a euh, bari pension de retraite yi nga xam ne yéen a ngi koy jot état bi fan la toll ci projet bi waaw euh, soxna Moro boo seetloo ji dund bi dafa gën a yokk tey jii boo jëlee cinq mille francs wala dix mille boo koy toj day jeex ci fan. Hmm. kon man seer na métti na ci dundin bi war na tax ba nga xam ne ku mel ni IPRES ku mel ni FNR war nañ di la ko mentionné ah di ko di ko kii ndaxte IPRES ko ñu euh, tabax ay immeuble di ko loué di teg ay xaalis ci banque yi di am dara loolu yëpp. Eh, toogaay bi saytu ko waxtaane ko su fekkee ne loolu weesoo war nañoo mën a ci xaalis boobu nga xam ne ñu ngi ko téye eh, mag ñi am nañ ay projet ñu ñu leen di abal loo xamee ne dañ koy projet eh, seen projet association yi seen projet mag ñu bokk xalaat ci lenn ba pare daal di leen ko delloo xaalis bi si ba loolu yëpp Euh, ay xalaat la yu nga xam ne yu rafet la war nañ ko mën a doxal euh, ngir mën a fexe ba mag ñi ah li li leen doon gën a métti ak li leen di dal mu wàññeeku ko même tuuti euh, tey jii mag ñi ñoom comme mu ko doon waxee léegi génn wàllu kër yi wala lu ko ëpp ci mag ñee koy doxal ma mën loolu tey nag teg leen ci ay conditions yi nga xamee ne marge de taal doo leen jël teg leen ci taal léegi maam Birame seeni jafe-jafe euh, lan la exactement est-ce que bu ngeen retraité yi est-ce que bu ñu feebaree ñu ngi faju euh, ak tamit nga ñëwaat ak ñun ci plan Sésame bi. wala ci wàllu faj mi jafe-jafe ba léegi waaw. waaw man barke de moo Ndiaye semaine bii passé maa ngoon Thiès ak ay professeur yoo xamee ne seen faj yëpp ci bato jëm ak euh, loolu ñu tuddee plan Sésame euh, nga xam ci doxalin bi fànn yëpp yi nga xamee ne jëm na ci mag ñi ñu seet naka lañ tegale loolu la teg ko Sénégal di jaar ci jaar jaar yooyu ak ci jëf yooyu euh, métti na nag ndax euh, fajum mag euh, mag ñi dañuy am ay feebar yu nga xamee ne diiru dund moom la ñu tuddee maladie am na nag loo xamee ne ñu ngi koy taawoo ñu koy gérer en quelque sorte ñu ngi koy gérer ba nga xam ne la sa doon métti du du du demee noonu dana woyof ah loolu ñu ci liggéey am na ay projets yi nga xam ne ñu ngi koy doxal ñu ngi ci conseil et eh, di ko def ci eh, naka su département yi di Dakar di jëm di def toujours activité bu eh, samedi ñu ngi woon Tëngéej par exemple di wax ci affaire feebar di wax ci affaire jaww ji ñi nga xam ne ñi jaww ji ñu mel fi mu toll ba nga xam ne day yokk sax feebar dindinu ñëw nekk ci gox goxaan yi te Tëngéej boo ko seetloo am na géej gi ñëw am na ay conduire yi nga xam ne nii ba mu nekk ci Sénégal yàgg na lool fekk na sax ñu bari ñoo xam ne juddu wu ñu woon tey jii euh, usines yi nekk foofu yooyu yëpp li wax la pollution de l'air atmosphérique day am te loolu dafay dal ci kaw euh, wér gu yaramu doomu aadama yi doomu aadama yi dëkk ci gox yooyu ak goxaan yi même tey jii bu nit di tux cigarette nga nekk foofu ngay tuxe ñu ngi lay tuxloo cigarette te yow doo tux cigarette yooyu yëpp lu wat a saytu lu wat euh, yi ñu war leen toppatoo di leen jëmbat parce que dëkk bu am dara yu bari dina dina ko soree ci yenn euh, xeetu feebar yi ñëw ci dafa euh, dëkk waaw ah, loolu yëpp ñu ngi koy gàllankoor si conseil bi mu ngi ci liggéey ah def na ci lu bari ay jéego yu bari ah, te amul sax moyen yi nga xam ne moo tax mu war ko def waaye am na ñi nga xam ne ñu ngi lëkkaloog ñoom ci boobu liggéey ñu ngi siy jëfle di kanam comme le centre euh, boobu nekk hôpital de Fann euh, CFF euh, ñu ngi lëkkaloog ñoom di liggéey chaque weer am na activité Euh, mais oh. lan moo tax temps yi sa yëngu-yëngal bareetul maanaam ni nga doon manifester di organiser ay marche pour état bi taxaw si jafe-jafe retraité yi dafa mel ni bareetul daal lu ko waral. waaw yow xam nga ne teel na bu ñu woon ne sa maam bi ñu dem ba nga xam ne bu dox sax day soox wala mu yore benn bant euh, doo ko ne doo ko xelal pour muy def marche ndax marche moo war doon li gën a mujj tey euh, marche il faut nga am kàttanu marche. bu bu dul marche tàggat bu nga xam ne da ngay tàggat sa yaram pour sa yaram gën a dëgër loolu marche waaye nag dama ne bu ñu demee ba def leen dànk ñu war a wax ak mag ñi benn dànk boobu ñu war a wax ak moom ku waxalug moom da yaa ngi yaa ngi nasaxal euh, mbiru mag ñi c'est-à-dire euh, mag dañ koy war maam waruñu woon toog sax ba mag ñi naan dañuy jóg di def marche wala di wax di ñaxtu loolu mislu na. ci réew ruus nañ ci kuréel yi nga ne ñoo yore mbiru mag yi alors kon euh, man mi nga xam ne yàlla dimbali na ma ba ma téye conseil ñetti at nii mais maa ngi daw naka la tudd ci euh, kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñu si bëri xam na ne maa ngi liggéey te di avancé ñu si bëri xam na ne su ma jóg fayda bi ñuy laaj ci mag mi maa ngi koy doxal loolu nag euh, dafa am solo jaamu yàlla bu rëy laa ci gis. Eh, lu may sonn sonn ak lu muy métti métti ko muñ te dinaa ko wéyee. ñu bëri dañoo jàpp ni yow da ngaa jege nguur gi trop euh, est-ce que loolu normal na te nga war a xeexal retraité yi. waaw su ma doon su fekkoon ne ma jegoon nguur gi trop dinaa am xaalis bu doy ci sama poche wala ci suma kees ñu jox ma oto may gëndaalu ci loole te loolu amul loolu masta am man aw ma salaire joxuñu ma xaalis bu nga xam man naa si sax doxal waaye damay seet ay nit partenaires yu nga xam ne mën nañu dimbali ci doxal yi euh, leneen bi bu tuddee sa topp mooy tey nguur gi mooy lan ñi ñi jiite réew mi Sénégal dañuy wax nguur gi mais du nguur loolu loolu la waxee pour nga jiite doo nguuroo bay nekk ci nguur dafay mel ni nguur alors donc ñun kuréel bii nga xam ne moom rek di war di waxat euh, kilifa yi warul bañ a mën a wax ak kilifa parce que ñoo yem li nga xam ne ñun na ko moom muy suñuy ay ak suñuy yelleef mooy suñuy droit comme boo waxul ak ñoom kan lay wax ak ngelaw man euh, buñ ma buñ ma bàkkee loolu ñi koy wax ma wala ñu ma xam bu baax boo waxtaanee ñoom dinañ la wax man maay kan. voilà saabu du fóot boppam nag man xam naa suma bopp. dernière question Mame Birame Faye ma ne. waaw tey dama si rax dool yi ñu naan xam bëgg xam bu baax a baax a baax. Hmm. xam nga bu doon desul nag. waaw pour ñu seet parce que mag bu féete rek dana xaw a parce que ñun ñoo leen jabote yéen ñëpp naka lañ leen di jabote ba naan ñu ngi leen di féete fenn. Mame Birame dernière question comme wax nga ko mag am na solo si réew comme niñ koy waxee sax mag mën naa ba cim réew euh, tey jii nag ban jàng nga am wala ban appel ngay lancé ci tension politique bi nga xamante ni moo am actuellement ci réew mi ban appel nga siy lancé. voilà euh, jërëjëf euh, soxna Mourou réew lu koy defar du ay niiroog naayoo. nag bu tolloo benn at ñu yoo nga def noot mu ngi mel ni kër gu nga xam ne bés bu yàlla sàkk ñu ngi reyante te kër gi Sénégal ñi ñoo ko bokk ñu ñëpp amul xaj ak seen ñun doom ñoom ñoo nekk fii nekk fële nekk fële foo dem nag suñu doom yeeg suñu sët yeeg suñu jarbaat waaye nag dafa am lu nga xam ne noonu la réew war a eh, ku nekk man na féete fu ñu féete mais waru te tere nit ñi war a mën a daje di waxtaan waggaale yëgoo du nasante di kii de satunte xee ah buute nag day am tey jii man am naa nu ma gisee doxalin keneen am nu mu gisee loolu de fukki nit mën nañu am benn dox euh, gis-gisu doxalin bu ñu toogee benn place ku nekk wax sa doxalin ñu seet ci seen biir nan ñoo gën a mën a ñu boole yooyu defe naa ne bu boobaa euh, jàmm dina nañ nay te dinañ jaar ci loon bi nga xam ne moom la yàlla santaane anne it ñun ci suñu wàllu bopp en tant que nit ñu d'accord ci di ko war a doxal ñu eh, daf ñu def ci ñun ñi di gis fantasiro bi saagante bi xeex woo loolu yëpp di ko waral nag lan la di ko waral rek dara man tey bu ñu moom lii ñu ne doon tënk mais sa lii xamee ne pour doxal ko rek problème la ci man waaye damay am suma gëm gëm yàlla ak yenn doole yi may jiggaani pour mën a dem parce que man man rek mënu ma doxal dina am am na ay personnes âgées si Dakar yoo xam ne ñu dama leen di oo oh, bër ko de moo jaay benn colonel laa oo daan ne ko kaay munu am benn activité te nga ñëwal comme yow yaa yoro woon euh, la grande muraille verte ñu nga ñëw nga présentation mu nangu ko ñëw noonu lay wéyee nit ñi nag nañu ubbeeku te xam ne fii du àllaaxira de mais jege na àllaaxira waaw kenn du kenn ba mm-hmm. abadan gaa yi woon dafa ci daw dem fële ñeneen remplacé ñeneen ñëw toog sa place kon euh, loolu nit ñi nañ ko xam te ñun bu ñu mayelee espace bi ñu oo ci ndaje yi dinañ leen wax dëgg ah, ak ku mu mën doon Mame Birame Faye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité man it maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jërëjëf voilà may fàttali yow yaa jiite conseil national des aînés du Sénégal ñu koy remercier bu baax a baax Mame Birame Faye bu baax a baax Mame Birame Faye